<laughs> moo om dañu am seeni banki bopp. surtout. dañu am seeni banki bopp. maanaam fa ñuy rawale. ah bon. xam nga en Afrique da ngay gis un monarque boo xam ne dañ koy fekk ci néegam. mu fees dell ak ay xaalis. liquide ñun dañ leen gën xarañ. mooy lu ñu fekkoon ca président wu Gabon. ba këram ak ñeneen. Mm. liquidité boobu. Mm, bëri ñii du ñu defee xaalis bu bëri sax. gis nga le groupe CBAO mooy Mimran n'est-ce pas.

Coris Bank waaw xam nañ ko nag wax dëgg yàlla. moo agence ci Sénégal moo ëpp agence ni ko avant indépendance ay société générale ay BCA wala seetlu leen loolu. surtout ku ko amul Coris Bank. Mm-hmm. Mm-hmm. na Coris Bank xam fu Coris Bank jógee. Mm-hmm. déedéet Coris Bank ci Coris Group Coris Group moo et demi

banque Aliou Sall ak Franck Timis. yaa ngi dégg loolu. Le Coris Group ci diggante bi suñu caisse des dépôts et consignations, ñu jox Aliou Sall mu uuf ko. pendant un moment. Mhm. avoir au Sénégal xam nga fa lay nekk. deux ans après Coris Group d'al di génn BDK créé Coris Bank. Coris Bank. Coris Bank fu mu nekk nii BDK. BDK yaa ngi koy déggati lu bëri. si si bëriwuñu agence. Coris moo gën a bëri. Mm-hmm. léegi Coris nag man dinaa am loolu di denc ci ay maal. mais léegi loolu. Euh, euh, euh, na présidence. Mm-hmm. présidence. Mm-hmm. c'est un cartel qui est là-bas. présidence. ah milliardaire ministre conseil Baba Diaw lan lay doyee poste ministre auto ak 3 millions da ko soxla ku am banque lu muy doyee salaire ku importer pétrole lu muy doyee salaire ministre conseil hmm. baratal yéen xam ngeen ko Baratal milliardaire la n'est-ce pas hmm. lu muy doyee salaire ak ministre ministre conseil il est ministre conseil à la présidence de la république hmm. China Road chinois yi liggéey CWI yi liggéey tali gis nga tronçon diggante toglu jëm kaw. nenañu nga insister ci point bi ngay wax ni Eiffage point point ban point point bi nga nek di développer ni mm-hmm. internet ni nga insister ci amna solo. loolu parce que nenañu da ngay yombal liggéey bi ci Bassirou Diomaye jaxar Faye. waaw mais liggéey la république pour mu xam fu muy. liggéey pour mu gën a xam fu muy tey loxoom. liggéeyu kaw liggéeyu suuf mais faaw ñu am touti aperçu. Mais est-ce que uh-huh. qui, pour juste une euh, rupture, est-ce que c'est pas le moment pour Bassirou nous donner instruction pour que certaines ne puissent pas euh, s'échapper non pour ñu mën a traverser frontière. romb kii wagul xaaral rek ñun xam nañu Sénégal <laughs> booy gis nga diggante péage bi diggante tooglu jëm kaw. Mhm. nañu lijjanti ku koy fayeeku mais au moins xam nañu koy liggéey baa Ba Taal moo koy liggéey. Jean Lefebvre ku koy fayeeku ku nga tabloom ci benn chantier Jean Lefebvre ah, travaille pour vous. mais yaa ngi chinois yi. yaa ngi auto chinois yi. Mhm. ay centaines de camions et d'engins la a commandé Google ko hors taxe depuis longtemps vers les années 2017 tout ñuy ah. euh, Il a Touba bi a ñuy defar Ila Touba a ñoo defar tamit a Touba bi Et Eiffage dañ ko arrêté defarkatu tout ku ku ku le marché infrastructure moo nekk biir présidence ministre conseil importe importer pétrole nekk biir présidence ministre conseil hmm? mais malheureusement lépp jeex na Arona Dia ñoom ministre conseil la. Mhm. frère est-ce que xam nga moom moo ñu war a jaay courant ci suñu gaz bi nga xam ne ñu ngi jonkan di ko séntu. comment moom ben ben benn ah bon t'es pas au courant. non non léegi da ngeen di xool West Africa Energy. Mhm. si si si si. moom ak Samuel Sarr c'était pas pour Samuel Samuel Sarr. ñoom ñaar la ñoom ñaar la te Arona moo fi indi Coris. mo indi Coris bank bi. waaw parce que Coris group, DGM ki ko moom.

ay catégorie la sàcc bu mag bu ndaw ñooñu ñooñu ñoo ñoo am problème fu ñu def seen xaliss mais mhm. mais mais ñi nga xamni ne ñoo ñuy sañe ils ont des circuits d'écoulement et des flux bon puis tout ce qui est société minière gazière pétrolière mhm. am nga compte BDK ak Coris man maa la ko wax d'accord fa lañu jallalé jàllale seen parce que transaction yoyu mhm. c'est des milliards et des milliards yo xamni boo ko defee société générale benn fonctionnaire bu dëkk Sicap moo fa nekk mën na ko gis wax ko benn Clédor wala wax ko benn Pape Alé Niang mu mm-hmm. senn mu senn parce que ay milliards yu mouvementé da nga koy gis mm-hmm. dafa fës ay milliards yu mouvementé dafa fës mm-hmm. léegi pour capter ces flux financiers moo tax ñu implanté BDK ba noppi BDK xam fan lañ ko def ancienne SNR mm. BNDES fi mu nekkoon yoo xam nga BNDES yow Guèye xam naa foofu. BDK xam naa ko mooy est-ce que xam nga est-ce que xam nga mën nga dawal oto ci souterrain bi ba biir palais. Hmm? xaw ma ko société société générale. waaw bi nekk foofu. Hmm. day génn palais. BDK de ah yow tamit. mais Ndiou Ndiaye Diop est-ce doon def xalaatoon nañ ne affaire bi seen nguur danaa jeex. ba ñuy ñëw te boobu. patrimoine national mhm. jox ko BDK loolu dinañ ko régler ji.

ku bëgg jàpp sàcc daal nu ma woo maa ngi. ah yow kay daañu la woo dèjà moo tax ñu naan la nga insister bu baax a baax en patrimoine bien inaliénable loo xam ni kenn mënu ko jaay. Mhm. léegi pour jaay ko foofu la Macky Sall amee responsabilité il faut que nga le décret de déclassification. ça. Le décret est ngay abrogé parce que décret yooyu mënoon lañ cee topp ki ko signé parce que c'est illicite des décrets illicites. illicite. Mhm. des décrets illicites. hôpital Dantec ñu dagg ko ci bi hôtel un hôpital. Mhm. vraiment. hôtel bay njëkk a de hôtel bi léegi mu mu yaa ngi gis mu mel ne comme si que hôtel bi mooy priorité que hôpital bi alors que hôpital bi da doon faj ñu bëri hein. ñu bëri fa lañ doon jógee si dëkk c'était pour euh, la construction de l'hôtel mhm. après coow bi bon moo am gars ñu on a des problèmes de santé on a pas de problème de. te d'ailleurs sax Bassirou président de la république joxoñ na ci dañu sant yàlla mhm. ba nguur gi jógee ci loxo yi mhm.

parce que ci carte d'identité bi bok na ci euh mu tuddi sax euh, am na benn champ bu ñu euh centre d'enregistrement mm-hmm. am na fu ñu bind ci sa carte d'identité centre d'enregistrement moy fi nga bindoo mm-hmm. lolu du renseignement d'identité filiation moo ko gën a renseignement d'identité que yow fi nga bindo fi nga déposer pour ñu défar la carte d'identité jotewul dara ak sa identité yow d'accord du sa adresse bi nga dëkk. du du du dara. champ bi mën nañ ci def filiation fils de et de. d'accord parce que sa papa sax duñu bind santam kon da ngay économiser foofu ay caractères. xam nga mhm. sa yaay rek la bind santam kon xëj na fii quoi. Mhm. donc euh, Serigne Diop li nga wax c'est pertinent parce que lii motif de fraude la. Hmm. parce que buñ né nee Ablaye Ndiaye du xam Ablaye Ndiaye doomu kan ak kan ñaata Ablaye Ndiaye am Sénégal. bëri nañ donc c'est une c'est une information. ça va nous coûter encore beaucoup beaucoup d'argent. mais on a de l'argent on a ça. on a de l'argent am nañ am lolu am nañ loolu. clé d'or nee na am nañ biométrique yi c'est carte de service CEDEAO bi xass bëri lañ ci dépenser li Macky Sall mo def lu ko neex. Mhm. ñun dañu amone carte électeur am carte d'identité. ah ñaar lañ am ñaar nga xam ne moo folli Abdou Diouf folli Ablaye Wade. mënon nako fi bàyyi de. mu xamni bi bii mu effacer ko jël bi defu ci filiation nga sais que tu nga am ay Ablaye Ndiaye yu bëri. Mm-hmm. dëgg la même date de naissance. Mm-hmm. mais fils de et de nekku ci moo leen doon différence C'est ce indi réeroo yi waaw am na solo. donc ay carte d'identité yu ñu saisir ak ay étrangers ñu voté ak yooyu mën na nekk sax sa tur yow. d'accord alors Guèye yan kàddu ngay euh, tëjee. bon di gërëm au Sénégal Je mm-hmm. beral ngërëm le colonel Cheikh Tidiane Bouch président euh, Assur. ak euh, Moussa Seck président Moussa Seck ñu ngi ñuy suivre. mouvement La Voix du Peuple.

le président Babacar Touré. surtout ndax combattant infatigable hmm. ndax li ñu fi yépp diko di ko def. nitu dëgg. nitu dëgg la véridique xam nga lan mo neex. ba mu dooree ba tay. booy wax ci dossier. 2021 ah. nga wax lu kenn dul dindi. kenn dul dindi. waaw comme limay wax ni. xam nga kenn du ko dindi. déedéet moom li muy wax kenn du ko dindi. parce que gis na ni dossier Adji Sarr moom fa mu gën a lëndamee. fa la xuusee jëm ca. Hmm. fa mu commencé ci dossier Adji Sarr. 2021. 2021 ak léegi du ku ñuy noppiloo du ku ñuy dicté ay loi muy noppi. Babacar dafa am fit te dafa dëggu. te aussi maa ngi lay fatali def lu kenn deful ci mbir mi da dem ba fa mbër ya xewee. yóbbu fa ay ndawam. def fa ben enquête bu extraordinaire aussi. ay enquête parce que mm-hmm. il a fait très longtemps. voilà ñu xamal leen encore mm-hmm. Kewlo moy premier journal d'investigation de l'Afrique mm-hmm. Afrique. xamné dafa am crédibilité. Afrique la wax nak waxuma la Sénégal. lolu il faut internet diko xam. lepp li ngeen fi fii ñun duñu ay waxantu nekkuñu di carte kàtt di kalang kalang wala di lamb wala wax lu neex nit mhm. dañuy wax informé juste et vrai mhm. lepp lo xamné wax nañ ko ci plateau yi bu fekkee dafa am ku mu blessé dañuy xamné bon dañuy waxtaan rek mais ut jubluwuñ ci lolu mhm. man né lepp lu ma wax bu amé ku koy contester waaw ah. yoon a fi plateau baa ngi fi bu mu ci bu ko ci gënal rek am na solo voilà jeex na solo bon nit tamit matul mën na amit ci suñuy propos ñu def ay erreur en matière de communication ñu ngi koy jéglu dinaan weer wi ñu nek muy weeru saxru ramadan Yalla yalla baye ñu fi tay suñu plateau bi ak salam baye fi suñu directeur madame la directrice des programmes mhm. ak euh, suivre yépp ñi suivre suñu raison d'être yalla yalla fay leen yalla yalla yalla leen amin amin merci beaucoup euh, jërëjëf jërëjëf aussi damay ci même témoignage ñu def mhm. euh, mu nek occasion pour remercier des journalistes exemplaires yo mhm. ils ont pu tenir le coup pendant qu'il n'était pas facile

alors que bu muy dund la gën am solo. Mm-hmm. donc ñu ngi ko ñaanal aussi mu gën a am wér-gu-yaram. gën a am gudd fan. mais liggéey bi rafet na. Mm-hmm. mu ak c' est le cas de Pape Alé. Mm-hmm. ñooñu aussi bi ñu koy def jamono boobu jafewoon na. surtout euh, def nañ ko maam am nañ ndam le Sénégal am na ndam. nous aussi euh, remercier Thioro avec changement bi récemment bon si programme <laughs> c'est pour accompagner la rupture prônée par euh, le président euh, <laughs> parce que nous ko seetaan en tant que citoyen dañ koy mm. jox coup de main mm-hmm. aussi nous mun a dem ci un Sénégal meilleur bon comme nous ñu koy prôné ñun ñëpp bon di leen gërëm di di remercier euh, dor, ci xam-xam bu leer bi. Mhm. comme euh, clair voyance mhm. clair vision clair vision. borom clair vision gërëm le ministère bi ñu présenter légui garda bu <laughs> Guèye Para vraiment neex na quoi. am na solo alors merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal damay bàyyiwaat Clédor mu tagato encore <laughs> encore faveur la maa la ko jox. waaw ma leen jox dig dajé suba parce que suba c'est jeudi on a une émission euh, sur l'économie. Mhm. ma lay suggérer ñu def ko une partie wolof une partie français parce que daf ci am lo xamni da fay intéresser sous région parce que nous avons les mêmes problèmes Même Mali Côte d'Ivoire que Burkina ak ci gouvernance de nos ressources naturelles mhm mais aussi ci ay esquisse de solution en matière de développement. amna solo je crois que ñom ñu ñuy suivre parce que ci commentaire yi damay dégg des fois ñu naan yéen pourquoi olof rek ngeen. pourquoi olof amna solo dëgg la dañ ko def donc euh, mhm. suba chaque jeudi. Euh, mhm. à partir de 16h. incha dañuy tenir ben rubrique gor gor lu wax ci affaire développement xaw génn politique bi tuuti. wax ci koom-koom. ak gouvernance des ressources mhm. naturelles. amna solo voilà donc xal ci ay yoon dal amna solo lay laay tay bi yoon. di leen jox dig daje suba incha merci beaucoup alors ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax comme ni ngeen ko gisee man la woon Clédor Sène ak Guèye Para ak nga xam ne moo di euh, Mamadou Lamine ñëwoon fii ngir faram fàcce leen lépp loo xam ne mooy tukkee ci suñu actualité te mu doon lu leen solo et j'espère que liñ fi doon waxtaanee euh, na leen woon en de ça amal na leen euh, njëriñ mbégte lay doon à chaque fois di jàkkaarloog yéen yéen ñi nga xam ne yéen internautes yu ñuy suivre à travers le monde entier ñu leen di jaajafal bu baax a baax naan leen restez avec nous ngeen aimé abonné di like li nga xamante ne moom la ñuy def di jaajëfal bu baax aussi ñi nekk si équipe technique bi naan leen bu rafetee ñoom la bu baaxee ñoom la bu yembee ñoom la ñu ngi leen di jox dig daje ci yeneen i jataay xibaar jaajëf